di ànd ba ni mu fi jógee dem France kóllëre gi ñu seq jóge naa fi dem ba Paris seeti nun nag kenn ku nekk ci ñi fi teew ak ñii dégg rajo bi ku ne ñu ngi lay delloo sa wàccuwaay di jàppale ci li nga gëm tey ñaan nu jàppal nu li nu gëm diine ji moo yaatu bunt yi bari ci يلا دفل نتوفيه ندقي بنت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم تيول ينين بنت بس كان كونك دقي بنت مالي دمو يق خمناني خمنا ماما waaye du ëpp ñeent fukki at dama ko topp ci ni ko xamal ni dafa am loo xam ni dama ko gis ci yow te yow boo ko gisee ci yow it lëndëm na ci yow ñeent fukki at yoo xam ni dama ko koy jéem a leeralal waaye mënul dugg ci nopp Malick Malick sama sëriñ la léegi dama ko daan wax bi saa bu gis nit wër ma ma ne ñii liñ may wër wër wër bu ñu paree yow la ñuy wër ndax man yow yaay sama sëriñ mu retaan léegi daf may bindal sax ay ay ay ñaan ak ay lu ne may naan ak di dugg Malick yàlla xam na ko yàlla xam na ko wallaahi la boole naa ko suñu ñoo xam ni maa ngi ñoom àndandoo ndax man maa newoon porte parole am nekk géwalam bi ko wut ndax fu ma toog ni leen Malick Serigne la nit ñi dañ doon reetaan billaahi dañuy reetaan doon reetaan ñëpp ñoom ñëpp nanguwaat nañu ni Malick Serigne Serigne te man loolu rek laa ci ñëw ma ne ko Serigne bi nag bul defee ni dangaa ubbi carnet yii ak yi jàng ko mu fekk si la dama lay xamal li la ko may Sëriñ Tuubaa ni ñu ko xamee ñun te du toq benn toq ndox sax ci biir géej waaye xam nañu ni moom Serigne Touba sellaayam boobu du kenn ku nekk moo ko mën a jox ñam woo xam ni daawul lekk day rëdd baaraamam tekk làmmiñam waaye du ñépp ñoo ko mën a jox loo xam ni dina ci teg ba samp baaraamam di ko jëmale ci biir gémmiñam maniko ko da nga am mam jo xamni da nga xamul dayom dama la bëgg wax sa dayom mam lool mo waral li yépp mané ko soxna ana lay la am lool mo waral mu mëna togal serigne touba dara serigne touba diko duggal ci bir gemeñam sel gum sel wa sel gum sel sëriñ Touba nag yàllaa ko may defal ko loo xam ni sëriñ Touba fu mu jaar daf fay bay jeexilit sëriñ Touba fu mu mës a julli jàkka la sëriñ Touba laaw àll ëtt fu mu mas a julli jàkka mbaa juma fu mu jaar bàyyi na fa jeexi kon sa maam defal na sëriñ bi loo xam ne jeexi bi tam foofu mu rogalaat ci yéen booba nag xaw ma guma sax soxna walima soxna aana aana mu ndaw moom lañ tuddee maamam aana ñoom ñaar ñoo ci des ci njaboot boobu waaye moom mi nga xam ne xamoon naa ko moom Malick ma jóge fii dem ba ma demee Paris fekk ko fa taawam Mamadou booba xale la bi ma yegsee ñu may indil yu may war a jëfandikoo Mamadou génn ci biir néeg bi daal di yegg si ni ko papa mu wuyu ko mu ni ko ayatul kursi ci ban saar la nekk ci xale la maalim ni ko sóoratu la bâche mooy sóoratu baqara mis tuuti xale bi dellu ci biir néeg bi ma dégg ordinateur bi di di yóbbu ci kaw ayatu ko ci ma ne ko sama wax ba rek moom lay fi julliwaat Sénégal gée nga jóge ña nga ko bàyyi seeni doom ñoom gëstu nañu leneen lu dul alxuraan kon yow boo ñëwee ba fii ci France gii say doom juddoo fi ci France yero ci France gi di lijjanti ay sar ci alcorane bul defe ni sama na a ko may way ba tay xam li may wax loolu yëpp taxul mu xam ko de bis bi ma xamee ni nak mi ngi bëgg xam li may wax damay wax ak mom ba mu yak mu di joy di jooy jooy yu ba mu yàgg mu génne ñaari jënd jox mm-hmm. mu ne ah, mm-hmm. mm-hmm. ñoo ngi leen di ziyaara leen di jox seen wàccuwaay man mii maa ni Babacar damaa mënta dem man ci sëriñ mënumaa jóge fii di dem ci xalif général de mourides di fa yóbbu loo xam ni su ma demee suñu ko càmbaree du doon loo xam ni lu wér lay doon ma ni ko defal ma gëstu dolli ko ci li ma xam fekk moom mu ñëw ni ma soxna aana ma nga tuubaa ñu suur ko ma ne ko déedéet yokkal sa gëstu boobu wérul boobu bi ginnaaw bi gis naa ba gis sëñ Abdou Samad mu sëñ Chouin fii ci abattoir ci bérébu soxna Anna mu di ko siyaare kon nag moom soxna Anna faw nun nu xam ni Serigne Touba mi mu liggéeyal